ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaayi maskani Touba baat misrasmia bi jaayi xayri man abaat aouzu billah bismillah inna waliyallah assalaamu aleykum ngi sant yàlla di julli bi sallallahu alayhi wa sant Cheikh na Ahmad al Khadim di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi lool ànd ak ku wér Touba ca kanam Nourou Daaray commission des finances sous commission gestion des fonds ci weeru juin deux mille vingt et un zone nationale muy ci biir réew mi Touba cinquante neuf neuf cent un mille sept cent quarante Mbacké six cent quatre-vingt-dix mille Wave soixante-dix-huit cinq cent quarante-quatre trente-trois trente-trois cinq millions huit cent dix mille Orange Money sept cent quatre-vingt-dix mille Wave plateforme dix-huit millions deux cent vingt-deux mille six cent dix Orange Money plateforme cinq millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent huit Dakar dix-huit millions deux cent vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-dix Rufisque quinze mille Bambey deux cent mille Diourbel un million cent cinquante cinq cinquante mille Fouta quarante mille Daïra Babul Ayadi Agnam cent quinze mille Goudiri cent dix mille Kaolack trois millions deux cent cinquante deux mille Kébémer un million deux cent treize cent cinquante mille Kolda cinquante trois mille Louga deux millions deux quarante mille Mbour trois millions deux cent cinquante cinq mille Mudéri cinquante mille croisement Diaroumé quatre vingt deux mille département Dagana Saint-Louis sept cent mille Tamba tournée massification deux millions deux cent mille Ngaye

Thialène Kagneen cinquante mille Sanc Daara cinquante mille Jifeer deux cent cinquante mille Fatick cent vingt neuf mille Koungheul cent mille cotisation banque Outarde cent soixante seize mille quatre cent trente versement anonyme muy yi nga xam ne dañ koo dugal te yi joxewuñu seen tur deux millions deux cent soixante mille deux cent trente kon nag li dugg ci biir réew mi muy zone nationale mi ngi toll ci cent trente trois millions cinquante huit cinq cent quarante yi nga xam ne dafa dellu lu génnoon te jotuta dem mu dikk mi ngi toll ci cent soixante dix mille francs amande mu di ay daan yoo xam ne ñi jalgati jalgati nag lu mel ni e, garab yi koko yi nekk ci Touba ca kanam ci yoonu Mbàkke wi wala potalamp yi nga xam ne tuubaa ca kanam mi ngi koy taxawu e, daan ya ñuy daan ñi nga xam ne ñoo koy yàq mi ngi toll ci liñ ci am ci mois de juin bi quatre cent mille francs ñu jàll ci zone Asie Japon trois cent mille li fa jóge lépp ci asi mu ngi toll kon ci trois cent mille zone Amérique Canada un million zéro quarante Brésil deux cent cinq mille États-Unis cent trente mille cinq cents Argentine six cent sept mille cinq cent soixante kon li jóge ci zone Amérique mi ngi toll ci huit millions six cent quatre mille zéro soixante Europe Italie quinze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-douze Angleterre neuf cent cinquante-trois mille Allemagne six vingt-quatre Turquie six cent deux mille France deux millions cent quatre vingt mille quatre cent cinquante Espagne million sept cent quarante mille quatre cent soixante kon zone Europe li fa jóge mi ngi toll ci vingt deux millions zéro soixante six cinq cent Afrique Cap-Vert cinquante et Guinée équatoriale million cent Gabon cinq Mali Côte d'Ivoire un million cent cinquante Afrique du Sud neuf cent Maroc cent vingt cinq mille Maroc trois mille huit cent soixante million huit cent trente sept mille Guinée-Bissau sept cent kon ci zone Afrique jot nañ ci sept millions huit cent soixante sept mille neuf cent soixante li ñu jot dajale kon ci biir réew mi ak li jóge bitim réew ci weeru juin deux mille mi ngi toll ci cent soixante treize cent cinquante six mille zéro li jot a génn université bi. bâtiment bi fa Touba ca kanam di taxawee ci ndigalul sëriñ bi ci weer wi jot nañ caa def quarante million huit cent dix mille deux cent quatre vingt de santé bi nekk Boborel def nañ ci six cent trente-trois de santé Kër Gol un million zéro soixante un cinq cent ci opération defar yoon yi jot nañ cee génne deux cent quarante deux millions cent un mille neuf cent quarante deux chantier base ba trois cent mille cent cinquante commission communication trois cent cinquante mille logistique huit millions quatre cent douze mille trois cent vingt huit reboisement ñi yore wàllu garab yi soixante dix mille liy doxal liggéey bi muy fonctionnement deux millions cent quatre vingt quinze mille sous commission leeral mu ñi yore wàllu làmp yi quatre millions six cent quarante cinq mille deux cent dix salaire yi ak charge yi nga xam ne dafa doon lu sax di génn saa su nekk mu ngi nekk sept million cinq cent sept mille cinq cent commission administrative trois millions cinq cent vingt cinq mille deux cent commission organisation quatre millions neuf cent soixante neuf mille cinq cent commission massification deux 0 72 280 ñi nga xam ne dañoo amoon lool ay jafe-jafe ci wàllu ndox Touba ca kanam xëccal leen ndox yóbbul leen ko fa toll na ci 9 millions 123 mille cent commission membre 625 mille dolli ci frais bancaire 83 mille neuf cent quatre kon li Touba ca kanam génne ci weeru juin atum deux mille vingt na ci trois cent vingt-huit millions cent cinquante-six quatre cent trente et li Touba kanam dajale ci weeru juin deux mille vingt ngi toll ci cent soixante cent cinquante six mille zéro quatre vingt neuf kon bu ñu xoolee li Touba ca kanam génn ci weeru juin ëpp na fuuf li mu dajale kon lii doon euh, li muy ëppee li ci génn mi ngi toll ci cent cinquante cinq million sept cent mille trois cent quarante deux kon nag li desoon ci compte yi ci weeru mai mi ngi tolloon ci neuf cent cinquante huit millions cinq cent trente trois bu ñu xoolee kon li des ci compte yi jamono ji ñu toll ci mois de juin mi ngi toll ci huit cent deux millions huit cent trente kon nag liggéey baa ngi noonu. di jaajëfal bokk yépp di soññewaat di soññe di takkaat laxasaay di yéegal pas-pas yi di laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ay ca murid Tuubaa ca kanam weer wi deena wajalilaahi maskani misrasmiha bi jaayi xayri man